Amadou Moustapha Ba la ko dénk maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllum économie ak wàllum finance nee nañu xarañ nañu lool ci wàll wi yéen kaay gi nee na Fatou moom la ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jigéen ñi ak wàllum njaboot gi journal bi nee na Doudou Ka la ñu dénk wàllum transport aérien Pape Sagna Mbaye ku bees la la ñu dénk wàllum napp gi Victorine Ndeye la la ñu dénk wàllum microfinance Alioune Sow ku bees la la ñu dénk wàllum culture Moussa Bokar Thiam ku bees la moom la ñu dénk wàllum communication Galoba ku bees la moom la ñu dénk wàllum fonction publique bees la moom lañ dénk wàllum jeunesse la moom lañ dénk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew yéene kaay gi di enquête nee na di président Macky Sall dafa te gouvernement boo xam ne nee na gouvernement de combat la maanaam gouvernement boo xam ne dafay taxaw di xeex journal bii di laas a na xeex bi Amadou Ba moo ko jiite maanaam mooy chef de guerre Amadou Ba mi ñu tabbu def ko njiitu réewum Sénégal def ko premier ministre yéene kaay gi di la rafet quotidien nee na gouvernement bii nga xamante ni moom la ñu teg am na ay les suuxu bi ñoom dañoo ñëw ne dañuy saafara jafe yi nga xam moom la askanu Sénégal di dund waaye nag ñoom dañoo mel ni dañoo bëgg gën a lor askanu Sénégal ndax lu toll ci 33 ministres ñoo fi nekkoon jamono ji jii yi nañu ko ba yóbbu ko 38 ministres yéen kaay gi de la turbine nee na njiitu réew di président Macky Sall bu ñu jàppee ne maanaam gouvernement bu yees bi dina tax ñun lijjanti wàllum chômage bi ñoo ngi nax suñu bopp te képp koo xam ne gouvernement bu yees bi dina tax sëg dund soppar ñi ko wàññeeku yaa ngi nax su bopp te gouvernement bu yees bi képp koo xam ne jàpp nga ne dinañu wàññi inondation yi ci réew yaa ngi nax su bopp gouvernement Macky Sall bi bu ñu ko fi tegee li ko tax a jóg mooy fexe lijjanti def seeni dëbal dëbal ba Macky Sall am ñetteelu mandat ci bopp réewum te loolee waruñu ko ko mën a nangu la yéen kaay gi de la Tribune Bougane Gueye Dany nee na Amadou Ba mii nga xam ne moom la ñu def premier ministre bu leen jaaxala mooy nekk directeur campagne Macky Sall 2024 te nag Mame Mbaye Niang mi nga xamante mi nga xam ne moom la ñu tabb sa diwaanu Ziguinchor dañoo bëgg ñooñee tamit di jàmmarloo Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu Omar Gueye moom ñàkk na lépp ndax Omar Gueye mi nga xam ne moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllum collectivité territoriale maanaam ñàkk na ko dindi nañu ko nekkatul ministre ginnaaw bi ñu ko gàñee ci élection locale yi mu ñàkk mairie bu Sangalkam ñu gàñee ko ci élection législative yi jamono ji Omar Gueye ñàkk na lépp maanaam simple la ba tey ci journal bi di ko di jeex nee na Abdoulaye Daouda Diallo bokkul Aïssata Tall génn nañu ko Matar Ba na nañu ko Dame Diop génn nañu ko Augustin Tine na nañu ko Seydou Gueye génn nañu ko Sahara Iyane Thiam génn nañu ko Aminata Assome Diatta génn nañu ko Abdou Karim Sall génn nañu ko Maître Malick Sall génn nañu ko Moïse Sarr génn nañu ko yéenekaay gi ñu xibaar naan ñu am na lu toll ci fukk ak ñett ci ministre yoo xam ne dañu leen a dàq journal bi xëy wax ci retouru Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne moom la ñuy nt maanaam tailleur constitutionnel ki nga xam ne mooy jël constitution bi jël fekkal ko Macky ba mu jot ko mu solal ko ko di Ismaïla Madior Fall moomee dar nay dellu si yéene gi ne na départu Ba mi ñu génne ministère des sports jaaxal nañu bare bari ak coupe du monde bi nga xam ne mooy wàcc loolee kaala yéene kaay gii di Walf Fadjri xibaar nan ñu Pape Diop récompensé nañu ko maanaam neexal nañu ko ndax Pape Diop mi nga xam ne moo fekk Macky Sall loolee moo tax Aliou Sow daal di dugg ci gouvernement bi ndax Aliou Amadou Ba impossible cohabitation maanaam ñaar ñii comme xaj ak muus mënuñoo ànd yéene kaay gi de la Tribune nee na Abdoulaye Daouda Diallo ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba ñoom ñaara maanaam dañoo yàgg a giita ngaa sa giita ngaa sa adversité bi nga xam ne dox na seen diggante ëpp na fanweeri at ak ñaara ñoom ñaar ñëpp ay inspecteur impôt domaine lañu waaye nag ñoom ñaar dañoo yàgg xeex un combat sans merci au sommet de l'État yéene kaay gi alerte xëy dañu xibaar naan ñu Mahmoud Saleh ak Seydou Gueye Macky Sall écarté di enquête xëy di ñu wax kan mooy Oulimata Sarr ku xarañ la moom mi ñu dénk wàllum économie waaye tamit Amadou Moustapha Ba mi ñu dénk wàllum finance enquête nee na tamit waajoojee tamit xarañ la waaye tamit journal bi nee na docteur Annette mi nga xam ne ab pharmacien la kookee tamit ku xarañ la moom mi ñu dénk nag Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ku social la ku compétente la enquête mooy wax liggéeykat la journal bi nee liggéey na ci privé lu ëpp ñaar fukki at titulaire d'un doctorat en pharmacie na xëy di ñu xibaara nekk waaye tamit di ñu wax kan mooy Oulimata Sarr ak kan mooy Amadou Moustapha Ba ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ci xalima ak Samba nee na Macky Sall ak gouvernement bii mu tekk niruwul koo xam ne ma jël ay bagage sama di dema yéen a kaay gi ñu koy fekk fa Alassane Seck mi nga xam ne moo jiite Ligue sénégalaise des droits humains nee jël na ab avocat bu xaraña xaraña na ko lijjantil ma càmbaral ma xoolal ma Karim Wade ak a kaay gi